waaw ci tënk rek euh, maanaam yi ñu jëloon noonu yëpp euh, dañu ko jël euh, ci suñuy gisante ak autorités yi nekkul loo xamante ne étudiants yi ñoom ñoo ko tànn lii la ñu war a def pour ñu tijji mais dañu toog waxtaan ak autorités yi bi ñu waxtaanee ñun ñëpp xool situation bi am ci dëkk bi ñu ne kat li gën mooy pour ñu am une boo xamante ne ku nekk di nga ci gis sa bopp mooy nañu désinfecter université.

mu doon loo xamante ne daf ñu jaaxal ñun en tant que représentant étudiant mu doon loo xamante ne mënuñu ko comprendre donc moo tax aussi ñu taxaw tem xamal ko étudiants yi mais xamal ko également suñu njiiti ne leen kat bu ñu bëggee ñu am euh, ubbite bu jaar yoon il faut que ñu def loolu parce que su mayee loolu rek ubbite bi du jaar yoon te bokk na ci également question wu accompagnement yi ñu war a fay mu doon loo xamante ne ñu ngi ciy jox ay jéego depuis ba demoon ba yaakaar ni autorités yi danañ ko fay mais tey ñu gisaat ni dañu nekk di delluwaat ginnaaw ci yooyu moo tax ñu taxaw pour wax leen ko ne leen euh, muy banque euh, yi ñu jël ak suñu autorités yi muy question bourse étudiants yi d'une manière générale dañu ko war a régler suñu bëggee université ubbi ci jàmm. waaw xam nga lépp loo gis dafa am ay stratégie tey tey tey ñu taxaw fii ne étudiants yi bu ñu euh, lii bu ñu ko deful grève la ñuy njëkkee mais ce qui est sûr c'est que bu nekkee ni ponk yu ñu wax amul. en tout cas université dinañu dégg Sénégal dinañu dégg te ñëpp dinañ xam ne université am na ay représentants yoo xamante ne bu ñu tënkee dara ak autorité bi euh, parole donnée la te autorité bi dafa am obligation mu respecté ko ndax xam nañ ni bu jaree wàcc ci tali bi def li ñuy bañ mooy sànni xeer danañ ko def. bu jaree def point de presse danañ ko def bu jaree leneen ak leneen danañ ko def parce que dafa nekk loo xamante ne dañuy ne gor sa wax ja donc bu ñu toogee ba tënk ay mbir pour mën a defar suñu université donc dafay jaadu autorité bi respecté loolu mu wax. waaw respect des gestes barrières ci loolu dama koy boole rek ci li ma wax sànq mooy mesures yi xamante ne jël nañ ko ak pour désengorger chambre yi donc loolu ñu ngi nekk di ci liggéey donc eh, jàpp nañu bu sottee loolu du doon problème.